couple yi góor ak jigéen di sëy mhm. ci benn ak ñaari at ba jëm ñett mhm. te am doom mhm. ñëw exemple ci sëriñ bi ñun buñ ko xoolee exemple ba def si bi dañu mën xam ni ku góor ki la wala ku jigéen ki la bu fekkee jigéen bi ñoo ko yeewoo pour faj ko ñu jël suñu wàll mais bu fekkee itam ku góor ki dafa tëw am doom mën nañ ko defal bilan spermogramme euh. suñ Bara Fall maa ngi lay ziar ah man de aw ma sa fay wax dëgg yàlla parce que bi ma ñëwee jóge Belgique sëy naa ñaari yoon aw ma doom presque dix ans de mariage aw ma doom bi ñu gisantee nii daal laa jëlam bu wax dëgg yàlla ci garab yi moom ma ju jox nii ma naan ko yi ma naan sangu di naan pour mooy wax mbokk yi affaire bi mën na ñii mën nañ gaaw la tey mu ñii mën nañ gis te daan deux wala un mois mais de toute façon de gis dinañ gis résultat aw ma nag sa fay maa ngi lay yokk di la ñaanal yàlla na yàlla fay yàlla na Serigne Touba fay ak sëñ Baara la kontaan naa ci yow trop trop trop parce que li ma la waxoon yëpp defal nga ma ko wax dëgg tey nag ginnaaw dañ fi ñëw ci suñu liggéey ñëpp xam ñu ci médecine traditionnelle muy médecine africaine mm-hmm. kon suñu a perdre suñu valeur traditionnelle mm-hmm. kon sëriñ warul mën lépp man mënuma lépp waaye dafay fekk ni xëy na feebar yi ñuy faj bu ñu ko mën a géey limite danga xaw bari danga jël temps mm-hmm. waaye dañ ci tënk rek ci li ñuy spécialisé wu comme ni ko docteur junjee tey ci thème bi tey bi muy surtout problème infertilité des couples muy couple yi nga xamante ni bëri na ay jafe-jafe yi ñu am ci wàllu am doom eh, du ñu wax sax ménopause wala du ñu wax sax eh, stérilité mais dañuy wax infertilité des couples ci ku góor ki ci ku jigéen ki ci doom xale bi ndey ji ak accouchement yi Euh, perte accouchement yi muy avortement yi ci nekk yëpp yaakaar naa ne buñ ci tënkee rek nañ ci mën a waxtaan ci àttan suñu borom jot nañ fi garab xam ne alhamdulilahi rabbil alamin bu ñu ko jëfandikoo bu baax a baax waaw sama soxna ñëwoon na ci yow sax ah ñëwoon na ci yow pour affaire bi te mu dëkk Thiès garab boo xam ni daaw ñaari yoon ba garab bi alhamdulilah yàlla def na ba yàlla def na yàlla def na ci am naa saq ndeer te am naa saq ndeer léegi vraiment moom ku tëb xamul man xam naa ko yàlla may na ko ay xewul yu bëri te garab bépp mu jox garab mu la jox rek lépp lu ñu nekk ci moom dañ koy seet gëstu ko ba mën a xam ni kii lii ak lii moo ne ci moom pour bu ko defee boo ko joxee garab mu bañ a am benn effet secondaire parce que garab dafa nekk lu mesurable nekk lu quantifiable ndax bépp garab dafa am ay principes actifs ay molécules des plantes yu ne ci biir loolu moo tax ñun nag gëstu nañu ba xam ni ñaari médecine yi warul mën a dem sans beneen mais très souvent dañuy faral di gis exemple bi may joxe mooy couple yi góor ak jigéen di sëy hum. ci benn at ñaari at ba jëm ñett hum. te am doom hum. ñëw exemple ci sëriñ bi ñun buñ ko xolé exemple ba def diagnostic bi dañu mën xam ni ku góor ki la wala ku jigen ki la bu fekke jigen bi ñoko yéw pour faj ko ñu jël suñu wal bu fekke ku góor ki itam docteur bee ko war jël muy erreur bi mo it mu def ci waram couple bobu en général buñ ko traité même pas ay wéru gàtt suñu borom dana ci def barke parce que problème boo gis amna solution dafay làqu rek mais bu fekke nit ki kooku mo ëpp chance wér que ki nga xamante ni exemple dafay dem ci benn pàcc bi kese. li ma koy njëkk demandé mooy est-ce que am na benn échographie boobu dana mën a détecter lépp luy infection bu nekk ci jigéen bi mhm. te dina mën a tax ndax ku jigéen ki amul kyste de l'ovaire mhm. ndax amul trompe yu bouché mhm. wala amul fibrome wala amul genre feebar yu ni men bu fekkee dafa am genre feebar yooyu ñu xam ni kii sage-femme bi ko yeyoo ñu jox ko ko bu fekkee itam fibrome bi moom opéré woon na ko te dafa dellu siwaat en général fibrome ñu ci ñi ko am ndax fibrome de l'utérus lañu wax mm-hmm. Mm-hmm. dañ koy dindi mais en général bu ñu ko defee intervention chirurgicale bi quelque temps après ou quelques années après day dellu si day dellu si waat léegi en ce moment là bu fekkee dépassé wul 55 mm. millimètres mm-hmm.

dañ la yóbbu ci urologue bi mu xool bu fekkee dafa war a jox garab wala bu fekkee moom dafa am varicocèle pour mu defal ko intervention éthique dañ ci jàpp ñu bàyyi ko urologue bi mu liggéey liggéeyam ñu ñu xool lan lañ ci yàlla rek ñu def ko ndax am nañu ay complémentaire d' aliments yi nga xamante ni pour góor gi nga xamante ni ñu ngi sëy ak soxnaam mënul am doom ñu jox ko ay garab da loolu yàlla def ci barke am na ci benn couple bu mu ci mujj am sax ndaw si mi ngi nekk France Marseille mais yàlla dafa defoon ci jamono jooju mu sëy mu sëy jëkkëram yàgg ñu xool ko foofu ñu ni ko sa benn ovaire nga manqué le par miracle nga mën a am doom tubaab yi ni ko essayé nga dellu sa dëkk nga xool est-ce que ñoom amuñu luñ ci mën mais yàlla ba mu ñu booleeg ñoom ñu ànd ci ak suñuy partenaires yi di docteurs yi mhm. yàlla may leen loolu ñu àndandoo lëkkaloo mhm. wax dëgg yàlla suñu borom may nañu fii ci Sénégal mhm. kon nag wax dëgg yàlla daal am nañ ci am nañ ci daal ay résultats yu am solo man dama fi amoon feebar boo xam ne daf ma sonaloon boo jàpp sama biir feebar bi docteur bu ne dem naa fa ñu def ay analyse ñu ne ma gis ñu dara waaye yàlla dimbali ma may suivre toujours télévision yi borom xam-xam yi yàlla xam na ne nag boroom xam-xam yu bari dem naa ci ñoom dem ci tubaab yi ba sonn ñu bindal ma ay garab ba sonn def analyse ku nekk gis ñu dara dem nit ci borom xam-xam yu bari waaye bi ma yàlla booleeg la Lamine Baara mii ba ma dem fa wax dëgg yàlla mu commencé ma ay traitement vraiment ci diir bu gàtt rek laa tàggoog loolu ma wax dëgg yàlla yàlla ak sëriñ Baara mii moo tax ma tàggoog loolu wax dëgg yàlla du loo xam ne traitement jël temps la ci man dama daan dem ñi may joxe reen ak i garab may naan ba sonn dara waaye wax dëgg yàlla ci kàttanu yàlla daal moom mii moom ma faj ba fajal ma yeneen sax wax dëgg yàlla loo xam ne waxuma ko woon ndax nit ku nekk boo amee jàngoro la la gën a sonal rek ngay gis